ci la yonent daan jullee jamonoy xandar te yàlla jox ko victoire victoire boobu mu joxoon ko ci kaw coalition boobu ñu tuddee al-Ahzab muy arab yi ak yahuud yi dajaloo woon yàlla mayeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen kaw yàlla na ko mayee Palestine bi amiin amiin amiin yàlla na ko mayee jullit bi victoire ci kaw yéefee amiin amiin képp ku ñuy tooñ yàlla na la yàlla mayee victoire noonee ca ka lay tooñ amiin barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ci yàlla xeetalee xeet yi amiin dimbale xeet yi amiin dimbale képp ku leen dimbale amiin gàccal képp ku leen gàccal amiin yàlla na yàlla sukkandiku ci barke barab bi ak borom barab bi sallallahu alayhi wa sallam amiin ñu cër ñu si yaa bépp kàkk. yaa rabbi yëgal yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin amiin yal na yàlla ubbil ñu bunti yiw yi amiin ñu bunti musiba yi amiin yàlla feebar bu ñu fi indi yal na ko yàlla saal allahumma amiin ay jëflete yal na ko faj amiin yàlla yal na lii fi indi yal na dem amiin yàlla yal na yàlla rag fay rag faj raggi lii li amiin raggi biti amiin yàlla raggi yaram yi amiin raggi xol yi amiin raggi ruux yi amiin raggi xel yi amiin raggi yu ñu xam ak yu ñu xamul amiin yàlla raggi yu ñu gis ak yu ñu gis allahumma amiin raggi yu ñu mën a wax ak yu ñu mën a wax amiin aaju yu ñu xam ak yu ñu xamul amiin yàlla faj leen allahumma amiin aajo yi mën a wax yi mën ta wax amiin yaa rabbi yàlla defaral ñu baax amiin baax baax ak ci baax allahumma amiin borom barab bi daan wéetal yàlla fii amiin yàlla may ñu wéetal moom amiin yaa rabbi ci àdduna ak ci àllaaxira allahumma amiin dañu yàlla may fi toll ñu di ko gis amiin dañu yàlla may fi toll ñu di ko gis amiin allahumma amiin buñ jógee fii mukk lu suñu aay yëpp faju na allahumma amiin lu suñu feebar yëpp wér na amiin lu suñu ñaan yëpp nangu na amiin suñu njaboot yëpp yéwén nañ amiin yal na yàlla rey ci lislaam rey ci suñu njaboot amiin yal na bu lu lislaam ak ku dul jullit jógee ci buñ digg yàlla ko yàlla def allahumma amiin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da'waana shukran